di tàmbalee ci nuyoo bi xalifatul am li tarixatul muridiyya sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi ci wér waaye noonu dañuy siyaare sëriñ Cheikh Jëmb di ko ñaanal mu yàgg fi ci waaye di siyaare njabootu sëriñ Tuubaa gépp ak Cheikh sëriñ Tuubaa yëpp di leen ko jaale waaye di ko teg ci loxol sëriñ Mouhamadul Mountakha aatum nag waxuma la yoonu murid waaye lislaam a ko ñàkk waaye monument la woon ci yoonu waxuma la la tàmbalee sëñ laat ba ci njabootu sëñ Tuubaa gépp lim lim lim ci def. di leen masawu nag ci tiis yi nga xamante ni moo dal ci mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi rawatina nag waa Daara Hizbut Tarqiyyah a ah, moom de ku nekk mën nga koo jaal sa moroom ndax kat suñu aatu li fi liggéey rëy na ku ci nekk mën nga cee teg sa bët muy man mii ak ñeneen ñi mel ni man ku ci nekk moo la defar kon day mel ni suñu aatu jóge na fi waaye day mel ni ba tey jëmmam des na fi. waaye nag Sëñ Tuubaa la maam Cheikh waxoon rek mooy mooy wax ju wax ju jeex. nee nañ booleeg sëñ bamba te bañ a bokk moom bokk amul njëriñ waaye moom liggéey na sëñ Tuubaa boo xam ne àdduna sëpp tañ ci sëñ waaye li li ma gën a gën a neex mooy biñ koy denc so soññaan na ñëpp ci sëñ Tuubaa barab bee di bàqee keroog lam daloo mi ngi koy doog a daloo ku ne wàcce nga nag waaye liggéey sëñ Tuubaa daal li gën a wér ba gën a wér mooy li nga xam ne moo mooy njëriñu àddina ak rek kon nag li ñu xam ci moom daal mooy murid saadix la woon koo xamante ni liggéey sëñ Tuubaa rek ci la newoon ci la doon xëy ci la doon gont ba tey jii bisam bii mu am de ñu bari ñee nañ ko ndax ku ñëwoon keroog ci bisam bi biñ koy denc di nga xam ne lii lu mu liggéeyal sëñ Tuubaa day mel ni nag sëriñ bi tàmbali na koo fay fii te àggaguñ fële. kon nag ni lañ koy jaale ci waa daara ñëpp di ko teg ci loxol Youssou jóob mi nga xam ne moo nekk ci kanamu mbooloo mi di jëwriñ waaye nag yuusu nag suñu xel dal na ci moom ndax ku nangutu toppe kenn du la topp mu doonoon jàmbaar joo xam ne